sëriñ Abdou Karim Mbacke borom màkkaarimal axlaax di kenn ci kilifa yi ne ci réew bi Sénégal waaye itam di kenn ci njabootu sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bokk ci waa kër sëriñ Fallou Mbacke moom jëmm jile demoon ci président Macky Sall mi nga xam ne moo ngi ci réew mi ngir amal fa ab tukkib nemmeeku. ci seen biir waxtaan nag moom kilifa diine gi ak ki nga xam ne moom a jiitu réew mi waxtaan nañ ca lu jëm ci lu jëmale kanam réew bu Sénégal moom du Abdou Karim Mbacké borom makaarimal axlaax àndoon ak délégation bu takkoo takku ci alxamis ji demoon ci njiitu réew bi di président Macky sàll ginnaaw bi ci la njiitu réew mi sàkku ay ñaanam ngir mu gën a ñaan réew bu Sénégal mu gën a am jàmm waaye itam mu gën a am naataange. wisit boobule nag aju ci cadre kóllëre gi nga xam ne ni Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax am na ko ak kilifa aada yi waaye ak kilifa diine yi nekk ci biir réew bu Sénégal.